Georges di la maa ngi lay fay di nuyu euh, auditeurs yi ñuy déglu di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan. yow yaa jiite agence nationale de la petite enfance et de la case et la case des tout petits euh, ma fas yéene ànd ak euh, Mouhamed Alioune Ba ci waxtaan wi li ñuy dooree moo di li nga xamante ay yéenekaay bind nañ ko fan yi passé jëm ci Cour des comptes ñu ne dañu épinglé woon. case des tout petits donte sax du ci sa magistère am ay recommandation yi ñu joxe woon ndax jamono ji jëfe nga recommandation yi parce que déjà mën nañoo wax ne entamé woon nga ab audit bi nga ñëwee waaw euh, Georges maa ngi lay remercier ci question boobu di nuyu Mohamed Ali bu baax mhm. di wax ni que euh, effectivement bi mu ñëwee fekk naa fa rapport Cour des comptes mu nekkoon euh, ay recommandation yoo xamante ne c'était pas méchant mhm. donc euh, fekk naa vraiment mu am liggéey bu am solo boo xam ne def nañ ko déjà ci agence bi. moo mhm. am benn niveau bu mu yóbbu li nga xamante ne moom mooy prise en charge petite enfance euh, ci Sénégal. Euh, di rappeler rek ni que c'est cette agence a été créée par décret. 2004 mhm. 669 bu 2 juin 2004. Mhm. remplacé par un décret de 2010. bi nga xamante ne moom moo jox prise en charge bi. Euh, moo jox prise en charge case tout petit euh, garderie communautaire yi centre d'éveil yi ak école maternelle publique yi. Mhm. li nga xamante ne moom mooy agence nationale de la petite enfance la case tout petit. Euh, recommandation yi ma fa fekkoon nekkoon na ay recommandation yoo xam ne c'était pas méchant. Mhm. mais soxla woon naa jël ay experts. ñu defal ma benn diagnostic organisationnel alors diagnostic boobu permettre ma génne défis yi nga xamante ne war nañ ko relever pour mu atteindre objectif yi ñu fixé. en rapport ak mission yi. lan la wone concrètement donc li mu lu mu lu mu wone euh, li ci bëri mi ngi nekkoon euh, grille salariale bi ñu waroon euh, mhm. valider ak état financier yi ñu waroon a mettre à la disposition du conseil de surveillance. et euh, organisation interne agence bi aussi il fallait revoir donc loolu kese la. loolu naka la mën a nekkee dans une structure pareille ci wàllu organisation déjà wax nga ni manquement yooyu nga jàpp ni ay affaires yu ndaw la mais quand même bu Cour des comptes demee ba souligner li nu mel parce que quand même c'est extrêmement important. waaw xam nga xam nga xam euh, nga Cour des comptes moom fi mu dem rek dara am ay recommandations yu ñu def ne lii bu ngeen ko defee dina gën a ñoŋal seen liggéey moom laa njëkk a attaqué wu et que euh, c'est occasion la ma remercier administrateurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci conseil de surveillance yi ñoom ñëpp seeni ministre de tutelle yebal leen pour que ñu ñëw euh, euh, nekk ci ci ci organe délibérant wu agence nationale de la case des tout président de conseil de surveillance bi nekk koo xam ne président de la république moo ko nommé par décret ñu engagé wu vraiment taxawu ma jàppale ma ba nga xamante ne lépp luy norme lépp luy procédure lépp luy euh, recommandation au cours des ñu mun ko. Euh, jëfee des problèmes ci wàllu euh, état finance la production des états finance pourquoi. waaw loolu xam nga munu munu munu munu ma ci wax. Ah, parce que parce que jiitu na jiitu na sama gestion. munu ma ci wax. mais mais experts yi bi ñu ñëwee. Hmm. ñoom wax nañ ma lan laa war a def te jëfe naa ko pour conformer wu ci recommandation yooyu tey hmm. jii lépp luy texte ci agence nationale la petite enfance la case des tout-petits validé nañ ko. mais est-ce que état nañ ko. tey ñu ngi certifié yëpp. avant il euh, de avait des des problèmes ci côté boobu. moom laa la wax mënu ma ci wax. li ma leen mën a wax mooy mais mais ci yow ak ki fa nekkoon yéen a bokkoon yéen a ci sama ci ndorteelu kàddu wax naa leen aucune organisation n'est parfaite agence boo dugg tey jii buñ ko càmbaree dina am ay recommandations yu ñu def c'est extrêmement loolu ay recommandations yu ñu defoon la hmm. yi conseil bi defoon yu cour des comptes defoon hmm. donc ñun bu ñu ñëwee euh, fexe nañu boo conformé wu ci li nga xamante ne moom mooy recommandation yooyu loolu laa leen mën a apporter comme réponse euh, euh, euh, ci wàllu woowu lu jëm ci wàllu personnel bi également am na ay recommandations yi nga xamante ne ñoom lañ ciy def te itam xëy na feeñ na ci audit bi nga xamante ne peut-être sakku woon nga ko surtout par rapport à la qualité du personnel. waaw man dama ñëw mandaté déjà par son excellence le président de la république Macky Sall mm-hmm. mu dénk ma ay ma am li nga xamante ne moom mooy soutien wu ak accompagnement wu tutelle tutelle yi nga xam ne moom la ñu dénk agence muy la tutelle technique mhm. du ministère de la femme de la famille et de la protection de l'enfance euh, muy tutelle financière muy euh, le ministère des finance mhm. donc ak seen accompagnement ma def benn audit euh, benn diagnostic sax lay wax mhm. diagnostic organisationnel la boo xam ne dina ma mën a permettre ma euh, jëfe mission yi nga xam ne moom lañ ma dénk ma atteindre objectif yi nga xam ne moom la ñu fixé wu loolu génnee na ay euh, euh, renforcement yoo xam ne war naa ko mën a accord apporter ci li nga xamante ne moom mooy organigramme bi mm-hmm. loolu moo ñu yóbbee ci defar benn organigramme mm-hmm. soumettre ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy l'organe délibérant de l'agence le conseil de surveillance bu ñu valider ñu ko mm-hmm. donc ci sur la base de cet organigramme là ci la ñuy liggéey am na li nga xamante ni itam euh, sàkk woon nañ ko ci yéen yéen waa agence nationale de la case des tout petits euh, ab projet de loi yi nga xamante ne dañ euh, dañ ko waroon soumettre njiitu réew mi jëm ci wàllub condition ak condition d'ouverture ak règle ak organisation fonctionnement kuréel li nga xamante ne ñooy yëngu ci petite enfance foo leen toll ci projet de loi boobu waaw xam nga prise en charge zéro trois ans yi. Mhm. dafa bokk ci suñu priorité ndax euh, boo waxee petite enfance. Mhm. déjà agence euh, mission am. Mhm. c'est réaliser équiper réhabiliter des cases de tout petits euh, mais également de d'assurer le bon fonctionnement. ci ci biir mission yooyu ñu ngi coordonner lépp luy intervention sur la petite enfance. et que ci cadre boobu. Euh, prise en charge 0-3 ans non revenu yi daf ci nekk une priorité loolu moo ñu yóbbee ci travailler ci benn projet de décret. Mhm. acteurs yi nga xamante ne waroon nañ ci euh, am kàddu ñi nga xam ne waroon nañ ci liggéey ñëpp liggéey nañ ci ànd nañ ci liggéey ak ñoom euh, waxtaanee li nga xamante ne moom mooy réglementer li nga xam ne moom mooy sous secteur boobu mhm. ndax tey jii boo xoolee. Euh, prise en charge 0-3 ans yi dafa ànd ak li nga xam ne moom mooy autonomisation des femmes et que jigéen ñu bëri tey ñu ngi liggéey soxla nañu structure boo xam ne am na environnement bu baax cadre bu sain la pour que pour que ñu mën leen toppatool seen doom yi am de 0 à 3 ans. Mm-hmm. donc ci cadre boobu moo tax mu nekk une priorité ci ñun ñu taxaw ci mu ñu war a encourager la mais ouverture bi c'est fait de manière un peu anarchique. dans le pays rawatina fi nga xamante ne moom mooy Dakar loolu moo tax bi ñu ñëwee aussi gis nañ ne que lu ñu war a réglementé la. Mhm. il faut que benn cadre juridique boo xam ne bu ko encadré la yaa une base. am na fu nit ki war a jaar boo ubbi structure mais il faut mu am une base juridique bu ñuy permettre ñun ñu mën a wàcc ci biir structure boobu inspecter xool ndax respecté nañu les normes sécuritaires standard euh, équipement bi war mu ngi fa batiment bi est-ce que war na mën a jël ay ay tout tànk personnel bi fa nekk est-ce que qualifié na yooyu yëpp waxtaanee nañ ko ci benn projet de décret. justement ci wàllu recrutement bi déjà comment ça se fait recrutement ñi ñi yor case tout petit yooyu. waaw euh, euh, dans le passé c'est déjà euh, ay volontaires la ñu la ñu leen tuddee c'est la communauté qui recrute hmm. parce que l'agence n'est pas chargée de mettre dans les cases du personnel c'est le ministère de l'éducation nationale ki affecte des enseignants. et que les collectivités locales di recruter ay bénévoles pour accompagner leen c'est comme ça que ça se faisait et c'était les, les collectivités locales étaient chargées de prendre en charge et de d'appuyer ces bénévoles et justement par rapport à ces recrutements am na ñoo xamante ne ñoo ŋaññ de Case des tout donc moom laay wax euh, donc recrutement ñi nekk déjà ci Case des Tout-Petits du ressortu agence du suñu mission ñun suñu mission réaliser ay cases la équiper leen réhabiliter leen assurer le bon fonctionnement mais ñu ngi travailler en collaboration ministère de l'éducation nationale pour que ñu affectel ñu foofu un personnel enseignant c'est le ministère de l'éducation qui recrute et qui affecte un personnel ce n'est pas la case est-ce que sentir euh, euh, li ñuy li ñuy def mooy euh, assurer la formation continue de ce personnel là et ñu ngi ci donc bi ñu yegsee aussi même bénévole li nga xam ne le président de la république sàkku woon nañu pour que ñu am benn plan de carrière et comme pour nekk enseignant il faut faire un concours mooy concours crème bi euh, tey jii ñoom ñu ci bëri ñu nekkoon bénévole niveau BFM la ñu amoon amuñu woon li nga xamante ne moom mooy bac ministère de l' éducation nationale daf ñu leen recruter ci ndigalu ki nga xamante ne moom mooy son excellence le président de la république bi may yegg si bu ngeen fàttale ko ñëw naa fi di ci di fi waxtaanee mhm. bénévole yooyu nga xam ne dañu nekkoon ci grève de la faim doon ñaxtu li nga xamante ne moom mooy euh, plan de carrière boobu ñu amul woon mm-hmm. tey jii euh, prés son excellence de président de la république sant nañu taxawuñu itam pour que ñu forme leen pour que ñu recruter leen ci li nga xamante ne moom mooy euh, fonction publique et que c'est le ministère de l'éducation qui recrute ñun on met en place les moyens financiers pour la formation en partenariat avec l'UNICEF ñu jox defal leen formation bu war ñu dem euh, euh, euh, ministère de l'éducation defal leen li nga xamante ne moom mooy examen yi concours yi te ñoom ñëpp ñu leen formé fi ñuy formé enseignants yi defal leen examen direction examen yi concours ñu defal leen examen bu ñu réussir ci examen boobu ci lañ leen di recruter ci li nga xamante ni moom mooy fonction publique et que agence tey jii pour gën a ñoŋal formation boobu dañu jëlee ay experts ci euh, euh, les nouvelles découvertes en neurosciences chez le jeune enfant pour que ñu jël ñooñu en charge ñu toll ci 1031 éducateurs ñu former leen xamal leen naka la cerveau xale di fonctionner parce que boo ko xamee yow mi sa bopp dafa lay dimbali ci sa santé mentale parce que xale bi buy def yenn yi di nga xam ne kii lii moo tax muy doxalee nii donc tu n'es pas nerveux du la stressé yow mi sa bopp. Mm-hmm. te di nga xam nan nga koy toppatoowee ba mu ñëwaat à la ci wàllu projet de euh, décret boobu ba léegi euh, insuffisance yi nga xamante ne ñu ngi ko nemmeeku ci prise en gone yi am diggante zéro à à trois ans ak itam ci euh, euh, cadre yi nga xamante ne fa lañ leen di dugal seen gëstu yi lan la wone waaw euh, déjà ñun il faut que ñu mhm. projet de décret bi mhm. président signé ko pour que ñu mën a dem gëstu ji ci ci crèche yooyu mhm. pour que ñun ñu mën a am accès il faut que mu am ce cadre juridique boobu ñun lu ñuy def actuellement mooy accompagner sa personnel là di leen former defal leen information continue di leen accompagner en matériel et en équipement le temps que projet de décret bi. ñu signé ko projet kon jafe-jafe yooyu. dañu fi ne fi ne non ñu ngi ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi en collaboration avec ñi nga xam ne ñoom ñoo yor structure yooyu mais projet de décret bi pare na. Mhm. bi ñu koy euh, bëgg a transmettre. mars boobu yàgg na de ci ci la ñu ci la ñu am benn ministre bu bees. Mhm. te kooku bu jógee aussi il faut que ngeen may ko temps mu imprégné ci projet de décret boobu te xam naa ne mu ngi ci mi ngi sensible na trop ci li nga xamante ne moom mooy jël en charge tout tànk yi muy moom muy euh, euh, euh, tutelle financière muy équipe am yëpp ñu ngi liggéey ñu ngi accompagner agence pour que véritablement projet de décret boobu ñu mën ko pare dooy jëbbal ko ki nga xamante ne moom mooy le président de la république éducation pour tous loolu défi la pour les les ñi nekk ci nguur gi est-ce que yéen euh, ci wàllu répartition bi def ngeen attention ci yenn zone yoo xamante ni xaw na sori pour ñu mën a am ñoom itam euh, seen case des tout-petits euh, ñu préparer l'enfant balaa muy dugg si. waaw loolu nga wax défi la défi la et son excellence le président de la république daf ko xam ba nga xamante ne lu mu ñu sant mooy élargir l'accès. Mm-hmm. loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy directive son excellence le président de la république que ku kuy xale bu jigéen xale bu góor fépp foo mënta nekk ci réew mi nga am accès à, à des structures de développement intégré de la petite enfance et que ñu mën la jël en charge nga bénéficier ci paquet de service bi nga xam ne moom la agence di mettre à la disposition de tous les enfants du Sénégal mmh. loolu moo tax tey ji agence nationale de la petite enfance la case tout petit mi ngi am 2147 structures DIPE mmh. dont 854 li case tout petit mi ngi am 426 écoles maternelles publiques mi ngi am li nga xamante ne moom mooy 572 centres de veille ou garderie. la répartition la répartition waaye doyul. Mhm, répartition doyul oui oui maa ngi ñëw. loolu doyul loolu moo tax tey jii ñu ngi liggéey ci li nga xamante ne moom mooy benn modèle alternatif ñu tuddee ko les CP5 les classes préscolaires de cinq ans pour que au moins chaque xale bala moo dem élémentaire mu nekk loolu sax ci euh, euh, mission bi ma jógee Euh, semaine passée di Ouzbékistan mu nekkoon la conférence internationale bu UNESCO buy am tous les dix ans engagement la ci état yi dañ ci jël engagement pour que loolu nekk mhm. une obligation xale bi mu am au moins une euh, obligatoirement une année de préscolarisation de prise en charge ci petite enfance bala moo dem élémentaire parce que gis nañu njëriñ bi nga xamante ne petite enfance amal na ko xale yi xale xale bi te xale yi nga xam ne jaar nañ ci tey jii dañu am ay résultat yu baax. Mm-hmm. loolu moo tax tey jii ñu ngi liggéey ci modèle alternatif boobu mais répartition bi dafa am ay euh, euh, daf contexte moo ko waral. Mm-hmm. bëri na ay régions yoo xam ne lu ci mel ni Kolda ñu ngi am deux 210 structures. Mm-hmm. lu ci mel ni Matam. ñu ngi ci ay 49 wala lu lu. voilà donc gis nga yi ma daan donc am na disparité. Mm. Euh, li ko waral euh, mooy. que euh, am na ci je veux pas trop m'appesantir ci loolu mais dañu am ay zone foyer religieux et que ci zone foyer religieux yooyu am nañ ko à Matam am nañ ko à Kaffrine am nañ ko à Diourbel mm. lu ci bëri dañuy bëgg yóbbu xale yi ci daara yi plutôt que dans les cases de tout petit loolu moom moo indi disparité yooyu mais ñun ñu ngi liggéey fépp fu xale bi nekk muy ci daara bi. accompagner ñu mën ko accompagner. muy également ci cas. sécurité bi mu mën a am service adéquat. responsable responsable politique nga ci APR. Euh, eh, eh, ñu ñu daal foofu waxtu yi dama bëgg a fii rek pour permettre à ce que véritablement euh, ñu adapter l'offre à la demande ci foyer religieux yooyu euh, agence liggéey na avec la banque mondiale ci benn mm. guide d'éducation religieuse mm. te bëgg nañu ci biir structure DIP yi éducation religieuse bu mu nekk bëggoon nañu bëggoon nañu yéen ngi commencé seen i vente de en en cinq secondes rek bokk na ci ñuy valider troisième candidature Macky Sall euh, muy man Maïmouna Sissoko militante de l'Alliance pour la République muy structure bi may jiite le mouvement national des enseignants républicains takku nañu ci njaayum carte bi te amuñu benn candidat pour 2024 bu dul son excellence le président de la république Macky ndax moom mooy suñu leader mooy suñu référence moom la gëm ñun moom la ñu gën ni moom moo gën ci réew mi parce que kenn gënuñoo fonk réew mi kenn gënuñoo bëgg réew mi bëgg réew mi moo tax ñu choisir son excellence le de la république ndax teg na yoon bi teg na Sénégal ci yoon boo xamante ne tey ji yoonu développement la gëm nañ ne fu ñu bëgg mu yegg moom rek moo a yeggale jërëjëf Maïmouna Sissoko euh, njiital euh, agence nationale de la petite enfance de la case des tout petits jërëjëf Mouhamed Alim Ba nuyu ak ziar soxna Naata Mbaye ak ñamu àndal ci TFM ñu yendook jàmm merci beaucoup Georges Mohamed Ali Mouba ak seen gan Maimouna Sissokho di leen ñaanal kendal ak jàmm ak programme rajo Futur Média euh, ñu dellu si ci ñaareelu pàcc info matin bu leen fàtte ci kanam Souleymane Niang dina fi ñëw ci jàngat bi wàllum football ak droit télé yi impact bi muy am ci entreprise de presse yi fii jàngat bi focus culture ak Ibou Diouf waxtaan bi tam ak euh, Abdoulaye Koné euh, doon joué fële ci équipe nationale bu Qatar Pape Amadou Fall nekk ab taskatu xabaar dinañ ko dalal itam léegi dañuy soobu ci xibaar yi ñu yaatal ko ak Ibou Thank you.